Mbaye Diop ñëw na indil leen lu bees seetaan leen ko Mbaye Diop ñëw na indil leen lu bees seetaan leen ko ay waay Mbaye Diop ñëw indil na leen lu bees seetaan leen ko Baye Diop ñëw na indil na leen lu bees seetaan leen ko ay waay Baye Diop ñëw na ànd ak ci weeru koor seetaan leen ko Baye Diop ñëw na jàmm nga yendoo alhamdulilah ah waaye yow de yàlla sant ci dëkk bi daal ñëpp gis nañ ko jëye bawol gépp daal sant nañ gërëm nañ ah ndax ku mel ni yow buñ ci amoon ñaar ba ñett ñeent fii fii day dina baax de waaw waaw moo tax boo ma woo rek lu ma bàyyi lu ma jàpp dama koy bàyyi pour ñëw waaw maa yónnee woon woolu la mhm. comme ni ma koy defee ak at mu nekk weer koor bu nekk ndeysaan euh, dafa am loo xam ni tey ji mhm. comme ñi mel ni man tëdd la euh, dëkk ak ay nit yoo xam ni. tey ñii peut-être genn wàll gi seen loxo jotu seen ginnaaw. Euh, ñu mën a am génn si loo xam ni ñu ngeek moom. pour génn ko def ko suukaru koor. dëgg la seet ñi nga xam ni waa war nañ cee am ñu yëkkati ko teg ko seen loxo. loolu moo tax ma woo la. ne la comme que chaque année dama ko daan def. kon cette fois ci foog ma def ko. dëgg la te bu ma koy def dafa ma ko ngir puukare. Ah, ah loolu kay xam nañ ko bu baax yow. dama ko def ngir yàlla ak weeru koor bi. dëgg la. kon na ma ko daan defee incha allah dinaa yëkkati lu mat juróom benn junni teg ko ci sa loxo. alhamdulilah rabbil alamin bu ko defee. <laughs> da nga ciy téye en attendant bu ñuy waaj a korité nga ñëw fi. <laughs> dinaa la jox loo xam ni pour sa korité la. yow kay yamal foofu rek ah waaye nag. am waay waay nag waay waay waay jë waay waay waay kii rek ah, waay lii de jëlal rek lii dey ah sant nañ ci de gërëm nañ la xanaa dina ñaanal mhm. li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal waaw lii dey du gan ci man mhm. te it xam naa jeeg dina ci kontaan waaw dina ci kontaan lool xam naa day bawol jëpp daal eh, eh, Gueye Téranga gii ñuy wax firnde la waaw li nga bëgg nag yaa ko xam yàlla ko suñu borom defal amiin amiin xam naa nag ah, ah damay daal di kii rek waaw waaw boo demee nga nuyul ma jekk lu bare baax na baax na ko dégg baax na jërëjëf te bul fàtte ah. bu ñuy waajo kori rek nga jaar ah, ah waay kii na ko ah kii kii wax naa ñu jaar rek eh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf Gueye jërëjëf Gueye alhamdulilah waaw ñoom dañoo daanul ba léegi. ah ah eh, ala Yawou Dial nii lay bëree de Yawou Dial nii lay bëree de. Ah, aywa aywa aywa bari na waay. daa mën nag Yawou Dial dafa mën de dafa a bëree. Ah, ah ah ah ah lii lii lii lii lii lii. waaw waaw waaw Ndiaye. waaw moom nii ngeen defam. Ah? waaw waaw. baax na ci de. waaye tëju rek kii fee combat combat yaaw jaal bi moom laa doon xool nii moom laa doon visionné waat nii doon ko xoolaat. say mu nekk nit de. waaw yaaw jaal moom dafa mën bëri de man sama mbër la sama xarit la. ndeysaan waaw. nuroo ngeen ne yéen ñaar de combat la. non sama xarit la. yéen ñaar combat la. ah man ak yaaw jaal. yéen ñaar combat la. ah waaw non du ma bëree ak moom du ma bëree ak moom sama xarit la. tey nag moom. waaw. dama kontaan. ah tey kenn du ko. moo xam ne kontaan nga loolu du ko duggee see laa xam ne kontaan nga. xam nga ne koor gi li des bëreetut waaw dégg nga daanaka bis bu dee si. daanaka léegi mu jeexee ah. moo tax tey kër Ablaye Gueye toos laa demoon. toos même ndaamaanu babal. waaw. Ah, ah. Eh. ah. waay. Ah, tey moom. waaw nii la ma ko doon jafe. waaw lii lu koy fay. nijaay lii sax pour mënu fi dara. bu ñëwee daa waane rek lii daal ah. waaw Ablaye Gueye nee na. waaw ñu jàppande gun ci. ñu jàpp téye téye wala koor gi ñu ñëwaat fu mu jox ñu lu ñu ko rey am na am na ko fi ñëw ba nga demee ba nga demee si kii am na ko fi ñëw ah maire maire Ndeye Sène Ndeye Sène waaw maire Ndeye Sène ñëw na si ah, ah, ah, bitig ba Ndeye waaw borom bitig ba maire bi jaay bitig ba fee maire Ndeye Sène baax la def ah loolu nga wax naa ñoo nag baax waaw lu waay jënde jar na xanaa bu baax baax na waa këram baax nañ maire Ndeye Sène waaw duñ la xool ba du la piège nii du la piège waaye daal ñi yàlla fi yàgg te loolu olof di wax baax na laabiir na teey na maanu na. bëgg ñëpp lu xoolal bëgg ñëpp nag. njabootu ñëpp nag njabootu ñëpp. waaw teel teel def ci bu bu bu bu bu damaa ne woon ñaari ginaar bi. ah damaa géntoon lii lépp ñaari ginaar bii moom demee na boor. kon tawaatal léegi teel teel bii teel bii bi ci bi ci dafa ma ànd tàndaa ko. waaw nit ñi doy nit ñi rek teel nii moom gaanu ci yóbbu bii. waaw fay ci ginaar yi. waaw bii nga garder ko pour suba. koor moom boo gisee koor. Ah. même boo wóoru sax del gën a asaka du joxe bu fekkee Baye Fall nga sax yow nga xam ne yow mii Baye Fall nga. da joxe ay asaka. mel ni Baye Fall voilà bu nekk fii nii euh, Mbacke Mbacke. waaw waaw ah Baye fast food bi. waaw waaw damay jaay fast food yeeg yooyu. ah moom day génne ay ndogu di joxe. ah loolu am na ah. kon non xamal man Baye Fall moom Baye Fall su may wax ak moom damay yëkkati eeru Baye Fall xamal man Baye Fall laa. te Baye Fall moom Baye ah, Fall xam aka aka aka ne hamburger ah, ah, hamburger dee fa jaar dee fa jaar sandis hamburger ak loolu noonu noonu was was was was ka baax ci yaram bas was ak neex was xanaa dugg ci biir eh? maa ngi doog a ñëw di tàngoor di xaw na maa ñëw naa dugg ci biir tey kay tey kay nijaay nijaay fël falaaleel. sànneeku rajax rajax waaw waaw kër gi moom tey moom day neex. Ah, kër xoola loolu waykat loolu waykat waay. tey day neex tey fii day neex. tey fii ah, day neex. dem leen tey man kay maa ngi toog fii maa ngi gérer. koor gi. koor gi kay tey moom. tey moom dana mën a tuq sa bënn saañ ba réer. waaw waaye nag fii yéen a ko digaale nag lu waay wax. lu waay wa na ko def góor sa wax ja ay ginaar nag yéen a wax ay ginaar na ngeen fexe ba indi fi ay ginaar na ngeen fexe ba tonk fi ay ginaar nag waaye ay mbaxalu saalum ak ay sonu nan ñoo sonn si mbaxalu ci saalum ge keccax geeg sonu nan sonu nan trop waay ay waay bay juub ci xale nga naan dooyul bay des fan lay xewe ee eh, eh, aase eh, poro foofu lay xewe